اوكي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد alihi اله وصحبه اجمعين ñi ñu nekkoon ak yéen ci ñeen fukki xadis yooyu imaamu nawawi tànn ci xadis yonent bi salallahu alayhi wa sallam suñu delloo ci ñeenteelu xadis ba ki ñu koy nettali mooy abdullah ibnu masud radiallahu anhu su muy waxee ne yonent bi alayhi salaam day wax wax na leen ni inna ahadukum yujmau xalquhu fi batni eh, ummihi arbaina layla ba ba addis bay jeex yonent bi alayhi salaam danay doomu aadama bu nekk yàlla dana ko def dana ko bàyyi mu nekk toq ma niyu ci biiru yaayam ñeen fukki fan gannaaw ba mu wëlbati ko def ko deret ñeen fukki fan wëlbati ko def ko lumbu yàpp ñeen fukki fan su ko defee muy ñeenti weer mu yónni ci moom malaaka malaaka bi bind wërsëgam bind la nga xam ne nii moom mooy bis bi mu war a dee bind la nga xam ne mooy jëf yi mu war a jëf gannaaw ba bind fan lay jëm ci àjjana ak sawara mbokk xadis boobu dañuy jàngal ñaari mbir benn mbir bi njëkk mooy wërsëg nii yàlla bind na ko yow li la war mooy sabablu bul yàkkamte sa wërsëg di sàcc di wor di njumlang mënoo fexe ba am lu dul yàlla bind ci yow gannaaw bi it ngay ñaan yàlla subhanahu wa taala ndax moom rek mooy dogal lu ko neex sa dij bi yàlla dogal ne war nga dee doomu aadama mënoo fexe ba romb ko sa warugar nag jiita loolu mooy boo feebaree fajul del moytu sa kemtaleel kattan waaye nga gëm ne doomu aadama bu deem jotee fokk day dee loolee ñu bàyyi ci xel bu baax gannaaw bi it jëf yi suñu borom yàlla moo moom ajjanaam di ci dugal ku ko neex moom sawaram di ci dugal ku ko neex loolu da koy gëm waaye nag boole lépp loo xam ne lii yàlla santaane na ko ne ku ko def dem àjjana nga def sa kéemtalal kattan lépp loo xam ne yàlla ne na ko def ku ko jëf dem sawara nga daw ko sa kéemtalal kattan mbokk yii lañuy boole gëm dogali yàlla gëm sabablu yi ñu war a sabablu sukkandiku ci yàlla yal na yàlla yéwénal suñu wërsëg barkeel ko yal na yàlla wërsëgal ñu àjjana suñu wàccuwaay yal yàlla jéggal ñu ca yërëm ñu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain